on waiting. asalaamaaleykum mbokki internautes yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa di nekk kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral ba daaytum sarchidin wal musarchidaat du nuyu kilifa dina yëpp min ngeen ko suñuy écran a ah, ñu fas yéene waxtaan ak moom ah, Laurent ci beneen facette maa ngi nuyu mooy loolu doo xool waaw ginnaaw ma sante yàlla julli si Mariam bu sellam di sant samay ñaari waajur waaye di bëggee jàmbaar yi ñoom Dame Gueye Kaaw Moomina bilaay ñoom Yuusufa Illa Bas Baye Mor Sarr di leen bëggee gaan jàmbaar yi waaw di bëggee sama almoori di bëggee jàmbaar yëpp lees waxul waaw. lees yi ñi nga xam ne dañuy beñ ba xëy dee beñ yëpp looloy jàmbaar. soo mhm. ngi. Mhm. ban non man nag damaa judd rek doon jàmbaar man damaa teel a doon bañkat. yee waaw yàgg bawul dara lees waxul. naka nga lax yi dégg naa am nga ci xaalis bari de ah, bii moom ak bee moom am na différence. maanaam. comme xaalis bi encaissé nga. non encaissé maanaam nga lax yi encaissé naa comme daa am ki joxe. comme gars na Laurent xam nga instant bi mooy loolu te war naa jox ku ne sama classe gi su may indil paat damay indil keneen ak keneen gars yi xam mooy loolu barki allah ji fàllu nag woo ma kenn comme nii naan la affaire yooyu noonu yàlla noppi na daal. yee tamit xam nga am na loo xamante ne day doon sa yof yaa ko war a gérer sa bopp. waaw lu gaay war a jàpp rek dinañ si jàpp mais am na loo xamante ne nii toujours tamit da war a wane jàmbarte nga géemal sa bopp quoi. mais toujours nii nii nii nii nii da ngay tàmb loolu quoi. dëgg neexul waaw. Laurent lan moo tax à chaque fois gëm-gëm bi muy wax nekk ci moom Laurent dafa tàmm ñàkk wala Laurent dafa tàmm koo xam te ne mosuñu koo jàppale muy demal ay propre moyen waaw da man dama miin ñàkk am daal laa xamagul mais ñàkk moom xam naa ko bu baax a baax waaw te dama dund ñàkk waaw xam ñàkk moo tax. bu ma ñàkkee rek damay xam ne yàlla la waaw. kon loolu dafa teel akamaa doylu barki allah gi fàllu lu ma am dégg war naa xam lu ma amul moom aw ma ko dama doylu barki leeru alxuraan ndax min naa ñàkk waa waaw judduma fi dëkk si étage waaw di yeew di ndekkee dix mille waaw moo tax daal xam naa ko maîtriser naa ko instant bi loolu dagg na instant bi yàllaa ngi wane boppam waaw ndax bu baax a baax maa ngi sant yàlla xam nga lu may sant yàlla yee ba ma man maanaam nu ma doo gisee avant tamit métti woon na daal te naaj mi ngi wàññeeku te day gën a wàññeeku daal mhm. fa lay waxee ak yow. benn jour ni Laurent toute une journée lekkul naanu mu naan ndox tëdd. non xanaa ma bañ a ndékki mais añ moom waaw sama gaale moom wax fa dëgg yàlla moom cin mosu fa dëpp barki allah ji fàllu dañuy togg añ dañuy togg reer waaw mais man dama damaa teel a garaleeru man maanaam ba may ba may doon booy ay yëre événement sax bëgguma woon ñu ma koy jëndal pour teel ka xam mu metti waaw dama xaa dund quoi waaw événement jot bar sëñ Fallou waa di sant sama mag bi pirik ak Absa Naar aram borom ton bi ak waa Mati ñoom ñëpp di leen bëggee waaw ko santul day mer ñoo ma ne ma sant leen yaa ngi dégg sant naa leen waaw. waaw yii barki allah ji fàllu événement laa la wax mosuma xam lu sañse di mel mais man maa bëggoon lool ndax bëggu moon di teg samay waajur ay pérection ñii sonn si ay affaire Oh, dama leen sonal ndax bu ma ko solee génn dama koy yàqaat quoi moo taxoon bëgguma di leen sonal si côté boobu loolu xaj na si waaw famille bi. ok teel naa xam xaalis. comme maanaam. xaalis teel nga koo xam. saa yi million mos ma ko teg sama loxo. ñu lay fay loolu noonu sama ménagère lay jóge pare jaar samay mag quoi après ñu waajee ko làmb ndax motul dara. waaw mais ma teg ko nii sama loxo yoo xam ne maa ko moom musul am. Mhm. Laurent tey di bëre ñu ne tey Laurent am na benn 500000 wala benn 600000 jàpp ci 1 million loolu lan lay def si loo musul xam loo musul tey di ko dégg. jàpp lan benn. benn 500000 benn 6 600000 jàpp ci 1 million mu leer na xaalis bi man maa ko ñaq maa ko ñafe ba am ko loolu lan la lan lay def si yow loo daan dégg. sama combat ñi ngi may fay million. Mhm. mais téyewaguma ko sama loxo. xam naa mais tey sant yàlla ndax li ma am làmba ma xamee ak sama gëm-gëm man toujours rek damaa jiital samay gëm-gëm quoi man dama yaakaar ne bu ma gëmul sama bopp rek perte naa moo tax toujours noonu laay demee. Laurent parfois dañ naan euh, fii jàmm gën surtout seen alaya bi dafa am benn bët bu ñu leen xoolee affaire banditisme. Euh, parfois da gis sax benn Laurent booy wax ñu ne day quinze wala benn Laurent booy wax ñu ne day naan mais loolu ngeen koy dundee en général quoi fi ndax fi ngeen nekk jàmm gën pour tuumaal ko fi nit dafa yomb. waaw man moom daw ma bandi quoi te ñu may àndal daw ñu bandi te jàmm man gis ma fi bandi xaw ma fi bandi quoi et tamit xam nga léeg-léeg nit gars dañ koy si comportement man tane naa sax ndax maa ngi màgg ni sama voix di xaw a dëgër mais man barki allah gi fàllu bu ma mosaan wax nga ne ma da ngaa màndi wala ma dem nga amee ma baatu ginnaaw daa màndi ba xamul lu muy def yee di wax mais man naa nii laa mel daal bar sëñ ak nit Laurent alal ak nitam tey barki allah ji fàllu fekk maa ngi am ñii man dama ñàkk yor ma dërëm mais bu ma amee ñii rek xool la ma ne ñàkk naa barki leeru alxuraan ndax toujours lu ma soxla rek ñoom dañ siy jaayante wóor na leeru alxuraan tamit moo tax man gëw ma alal sax gëw ma ko su ma naree am alal fàtte samay nitu démb yàlla bu ma am yàlla naa gën a yées su ma naree am alal booy nii kenn sentiru si boppam walla may comme lii may jot am nii lu tuuti rek laa la wax booy ku si sentirul sa bopp yee ba ma jàppal en yàlla bu ma am man bëgg naa lu ma lekk booy lekk ko. ok sa ak booy yi mës a dund loo xamante ne lu metti loo xamante ne moo tax nga téye la sa soo xoolee booy nga fekk nii man maa leen mag tey samay rakk rek nga fekk. comprend mais dafa métti de barki allah gi fàllu mm. waaw soo xoolee ba ci biir ñu si xaagi booyin ñoom dañuy jaayante pour lan tabaxal seen yaay kër wala seen papa ndax ku si nekk yaay dëkk kër goo xamante ne moo ko da da ngaa loué yow comme jàmbaar rek moo la war doon beñkat mun a teg comme moo tax booy foo leen jugeel rek ay ree la may def ndax ñun ñëpp man moom naa sax kër gu ma ne sama kër papa la mais bëri na samay booy yoo xamante ne weer bu dee borom kër la leen di tàllal loxo te loolu daf may métti wur na allah ji fàllu te booy ay bañkat lañ booy loolu daa war a dagg gaan barki leeru alxuraan booy dañuy liggéey mais imagine ngay liggéey doo mën a dajale pour tabaxal sa yaakaar xam nga lu tax weer bu dee da joxe luwaas avant weer da joxe dépasse añ xam nga ñaanu ma ko yàlla bu la feebar arrivé si yoon bi tamit nga joxe teg fa jeexal tamit moo tax day métti mais booy koo si yokku doole am loo ko gëmloo tuuti mhm. barki allah gi fal mu teral yaay gi waaw. loolu mos naa def benn anecdote boo xamante ne tey supposons benn xaritam wala moom mu dem ci benn moment bu difficile boo xamante ni tey nga gis kii ni soit mu feebar wala mu war a lekk Laurent am yëg-yëg bi mun ko koy jox. wala Laurent est-ce que dund na loolu moom am personne wala benn xaritam bu ko mos a dund boo xamante ni yow da ngay toog naan teemaa dem défilé teemaa dem défilé. saa ba tey nii may waxee ak yow damay dund lu ma métti damay dugg si YouTube bi gis ñoo xamante ne nii barki allah gi fallu man jàmbaar naa yombur ma jooy mais dama koy jooy sama xol bu baax a baax. wóor na leeru alxuraan ngay gis ñoo xamante ne man bu ma lekkee ba suur këll damay tiit damay damay tiit. bu ma lekkee ba suur këll damay tiit. heure bu ma koy lekk am na kiy dawe gi di koy uti ji di sonn bu baax a baax am ñoo xamante ne ay nit njaay lañ mais dañuy dem ba jeexal seen ngor xoola di lekk si mbalit bi ndax sonn billaay walaay taalaay mi métti si man damay se man damay yor sama benn weccet dugg YouTube wala TikTok gis ay affaire rek génn envoyé ko pare naa ko dund moo day métti barki allah ji fàllu day métti da ngay gis ñoo xam ne dañuy wax bay man bëgguma kii tuur xewal kii jooy barki allah gi fàllu mais dama koy gis tamit te loolu noonu am na ñoo xamante ne ñoo lépp tekki nañ ko waa barki allah fàllu te gis nga alal boo ko amee sa àjjana rafet na mais tamit sa safara leer na de da si siy jàppale ñoo tane ko waa ñun moomuñu luñ am nii barki allah gi falu alal bi gars waxtaanee ni ñun moomuñu ko de waaw xam nga ko ko moom mi ngi jóge fa yàlla te barki allah gi falu ak loo yor yor yor yor gaan doo dee bañ jël fikki dërëm dugal ko sa bàmmeel da nga ko fiy bàyyi te tamit daa yéeme daal. yee moo tax gars yi dañuy wax lu am solo ñu mën a kootu amuñu lan barki allah agi falu loolu logique la saa man bu ma yoroon dama fay te jeexal. booy nii ku si yoroon non doo gis kenn sonn ndax man day am ñoo xamante ne ndeysaan dañuy ñëw si man di ma ñaan sax xangalu ma la ak sama tur waa waaw dañoo yaakaar ne tamit man ma waaw te yàlla xam na ne bu ma ndékkee sax booy ñoo ko jaayante mais tamit buñ ñëwee man damay xamante ne ñii dañoo bàyyi ñëpp ñëw si man barki allah ji fàllu ma jaayante ko te balaa ñoo dem liñ bëgg dinañ ko fu jële si kàttanu yàlla ndax dama kay jaayante rek dee man ñaan ma yàlla di tas yaakaaru nit mais dëkk bi dafa métti barki allah gi fàllu gars yi tamit borom doole yi du foos mais nañu geesu ñu seen ginnaaw waxuma man de man naayes man am kat laa man loo def ba am alal damay def lu ko ëpp ëpp la alal jàmbaar laa waa xale laa nag moo tax sax mu demee nii mais gars yi dañ see war di jàpp waaw di tamit bége sama xarit maxu transitaire ah. maxu di ko bége non loolu dara man dara joom ma waaw Ablaye Diop xaas waaw laa Diop xaas di ko bége bu baax a baax non xaas sama link la rek sama xarit la rek man boo ma diggee laa la wala nga ne ma kaay ma may la nga sant ma barki allah gi fàllu bëgguma laa lay wax man kenn du ma santaas waaw. oto bi yàlla na ko yàlla def bu ma may oto ma jël. waaw mm. booy tamit di mën a dem. Ah, waaw mais tamit l'international. Mm. formeuse. moom sama link la bu ma ko jàppee si temps deg mu bàyyi àdduna formeuse moytul sa bopp bu ma la jàppee rek nga bàyyi àdduna maa ngi wax ngay dof-dof la mm. sama jour la nag Sénégal équipe Sénégal la ne ci kaw ba suuf moo leen dàq football. formos mendi waaw loolu doo ko weddi yow ah, kooku mooy naan rak tak profondeur rak tak profondeur waaye Sadio day xaar formos ñun sama yoon neew si formos mendi hmm. sa tët tët tët kookoo euh, ngi wax hmm. waaw gaa yi ngi wax maa sama bopp Formose waajal combat bi laa lay wax ni ngay dof dof la xamal li ma la waxoon. taamu Laurent war a yow Laurent dafa fi dara di taamu ay adversaire yow lan mooy sa problème. su ma neexoon sax un mois ma bëre. mais ay njalaxaan laay bëral man. neew ma si gaam boobu mbër yu <laughs> mbër yu ndaw ndawaan yi mais man neew ma si gaam yooyu ceeb bu sew gi man soxlawu ma soxla ñu mag ah man si yenn la jóge mais tamit yaa ngis gis ay combat examen rek laa jàll. waaw jaar man ma wàcc defis. Fesa foo jëm université. Cheikh Anta Diop. duma la ko nëbb. Eh. doo xool. ban fac ngay dem. duraat lan. Ah. gauche. ah, ah. duma la ko nëbb. waaw ah. yàlla noppi na yaa bokk de problème dans ce il n'est pas solution. kenn amul solution bi. <laughs> bar sëñ Bamba. mais lan mooy solution bi. Ah, bel bi daabuloo loolu kese solution bi mënoo kaa xam déglu rek yow doo xool. kan la Zarko na jël man moom ma dara barki Allah. yow nekk da ngay pirate yi waaw ba <laughs> waaw na jël comme naaj man moom ma dara. Hmm. <laughs> mais yow instant bi yan adversaire nga bëgg. comme maanaam. kooku yow man ñi ma bëgg suma ma la ko waxoon da ngay mënul ne. waaw kay nga gis nga ay tafaatin ay bombardier ah, Balla Gaye day xaar ndax daa tegle ay defetam ama seen ndaama benn jooy la hmm. waaw. kon day xaar avorté làmb hmm. bëgguma. ama leng sa borom ndel bi. Hmm. na ñëw ñu eh, bëri na ñëw wat ma. léegi soo nga danga maa ragal. borom ndel bee ama man rek ngay daw. baal bañ dajee si dini nga xam ne lépp dëgg la zooke bi ngay fekk foofu noonu. léegi ah ma ngir yàlla wat ma xam nga tàncoon naa la naa la tàncaat hmm. waaw. mais man waxuma loolu de mais Laurent bàyyi yi def bëri lañ la wax gars yi bëgg nga bëree arène nationale de la namm loola doo jël ci booy yan booy laa jël man saay nag. du ma bëreeg benn piccolet. yaa ngi dégg te tamit xam nga maag booy yemuñu daa am lu ma yàlla may loo xam ne may leen ko maa ngi sant yàlla. booy ñoom seen avance dañ leen koy wéef ndax bëriwul man sama avance si saag lay jugee ay millions lay doon mais tamit ay millions nekkul tamit promoteur du ñëw rek million million di la ko sànn da ngay jël sa temps. ku ma bëgg kay wax naa la ko ñi ma bëgg laa la fi limal de. non waxoon division la ah. kees du ma ko tëkk. daa ëppal quoi bërëm neexul. Hmm. rang rang rang yu dul jeex nga jàpp daal ñu ne la kii daa ëppal teeyul. chef waaw Malick hmm. na ñëw ñu bëre. encaissé nga na ñëw ñu bëre. Hmm. waaw dama am génération si làmb. ñoo mag de. Ah, maa leen kii si làmb quoi maa leen gën a osé si làmb saa dama osé aisé ah, waaw combat bu ma dégg de école de moo faram géejawaay la liñ moo faram géejawaay waaw woon naa fa ba yaa ngi bëgg a dugg naa fa ba toj li ngom kay sa të të të buusita dama felox sone mu yakaar maa ngi rëpp kat api ma caxabal ko ah. <laughs> na benn doomu ndeyam boo xam te ne ñu ngi dox combat bi. kan la dafa tàng ah. Ah. wax. booy wax ah. <laughs> ngir yàlla wax ma nag ay làmb yoo xam mooloo man boobu ba tey maa ay làmb yoo ay làmb du si génn. mais làmb du si génn maa nga yow promoteur nga ba nga may laaj ku ma a bëre. promotrice laa amul ah, ah, jigéen lay wax promotrice daal. lu ma si xam man maa ngi lay. promoteur góor mooy promoteur jigéen promotrice. lay laaj yow it doo ma tontu si lu ma lay laaj. jigéen promotrice. waaw naa yow promotrice nga. waaw sama combat ak buusite si yéen la jaar loolu dafa leer mais tamit boobu kese. mais instant bii nii daal ñu ngi may wax làmb maa sama bopp ah. waaw sax amul jour bu may toog ah. huit promoteur wala neuf wala dix wala onze treize quatorze quinze seize dix sept dix huit dix neuf vingt duñ ma woo parce que yàllaa xew xew ma de yàllaa xew amul jour bu ma promoteur dur woo mais man maa sama bopp. mais ban heure waaw ah, non maanaam am na fooy toll. Hmm. léeg-léeg da ngay bës mon avion quoi pour mën a nopp sees sees lay wax walla gs sees soo lan serse sees sama laamin moo xaw a takk nag quoi sees waaw dama koy fay vingt heures ba deux heures du matin ma taal ko kon ray lay tàkk huit heures ba midi mu fay midi mu mu midi ba deux heures mu tàq deux heures ba trois heures moom mu fay instant dugg na xël wa nii fay na fay na ni timis waaw emploi du temps téléphone bi ku ma bëgg a woo boo ma woo jot ma kii daf may jaxase ak ñu bëgg a woo <laughs> dégg ngeen ko bëggoo ba kenn woo naa Laurent dafa naqaree jot wax na leen emploi du temps téléphone <laughs> noonu la demee saa mooy loolu dafa ma bëgg a jaxase mooy loolu safara kii mi ngi wax si yow wax na ma nan nga war a daanoo de mais soxlaw ma la waaw ah, yow sànq ba médias yi fee loo euh, Laurent tey su ma la tegaloon ah euh, tey su ma la Viviane ban ngay jël. laa bëgg mais Viviane bu amul jëkkër ma takk ko. ah. duma la ko nëbb lool dafa fees. bu baax. ay séeri nangul ma dama war rab yooyu dafa fees de. non moo am rab séeri ma nangul ko dafa bari rab. ah ay Aïda Samb ñu ngoro nga baax nga sëy si nga baax. balen say si woo yëngal kër gi balinkoo loolu tamit dafa doy waar ne ay abi nduur abi nduur dama koy gét gor rek a sonn du yelwaante rus na ñaan koo koy gor non dafa neex waaw damay déglu ay El juuf moom laay xaar wallaay wallaay demoon naa bay seet si lu ma ne soxna si masa coona yooyu noonu dama koy géddee bar sëñ Bamba waaye yow dama koy déglu liwaa liwaa dama koy déglu bar Rocky Rocky Rocky Daba yooyu dafa fees ah kii yow doo déglu son yow doo saa Souleymane Faye sax dama koy déglu ceen bule nga def si kaani ceen bule yooyu noonu yëpp dama koy déglu ay ceen bule yooyu dafa doy waar billaay wallaay taalaay. titi enquête dama koy déglu. titi Youssou maa jigéen ba mu woy Youssou Ndour loolu dafa fees dama doy waar dama njublang. dama njublang de. moom son yëpp neex na. waaw souvenir souvenir souvenir yooyu dafa. non yooyu dafa dafa doy waar. waaw xaar mbay ah, lu mu baaxul. kaaro yàlla nee leen gis nga na gaane ne kaar. Ah. macha allah laf cet. Mm-hmm. waaw. saa dama koy gedde. waaw damay déglu lépp man moom nay neex rek kësëng kësëng kësëng waaw. déggoo li ma lu am guitare am tama rek dama koy déglu ñaar ñëpp ak sam pause yi ah, ak am na pause ay king papa yu ñoom moom bëri naa ay damay déglu am na keneen voteur voteur voisin visi ah visi moomu dafa voteur voteur visi loolu tamit dafa garar visi voteur voteur voteur visi ay waay vise yi loolu noonu dafa fees vise yi day wëri ba xoola gaay di xëm waaw vise yi doo koy déglu voteur voteur voteur vise yi vise yi la ah, nee daal ah waaw mami Cobra la Cobra waa waaw Fat Savon sama link la Maam Ndiaye Savon xam nga lu man bëgguma rafet danga may déglu sëñ Fallou ñu boole maa moom ah. waaw sama link la mm, maa wax dama fay dem ah, dama fay dem doo ko yëg ah. hmm? Savon sama link la ndax lan sëñ Fallou ñu boole maam Ndiaye savon kës kës loolu noonu dafa fees yooyu noonu yëpp dafa doy waar waaw. mais nga ni visi lan la. visi voteur voteur viteur visi mooy woy gars yi di xëm waaw ah visi ah. booy maîtriser woo leen visi yéen ah, ah visi mooy lool. koy doo déglu bu baax. an ah, kay dama koy get viir day tëgg ay concert may dem di làqatu kenn du ma gis. benn bàq benn bàq mën nga bàq. ban bàq mooy la. Eh, non loolu loolu loolu yëpp paa la loolu yëpp paa ngir yàlla ah, wax mbaru démb ay maaka daan sa gun ku ndak yooyu noonu neew ma non non non dégg nga léegi loolu wuy ma soo léegi loolu noonu ah. xam nga ngeen ñoo xëy mën ah, doomu mbër yi waaw eh. ah, <laughs> doomu mbër yi nañ ko mën. mun naa ko mais doomu mbër yee ñu ko dàq maa ngi ne la sa gun ku ndax xam nga loolu xamoo ko woon max marganaan loo muus muus max la gën a muus yooyu yëpp waxu démb la waxuma nii lay ne cër sa gun ku ndak <laughs> non non non biram nu mbee nga ca ngut maa jara tëgal ah. maa jara ke we sa jaadi waagu naay ah, ah ah buñ ma appuyé bu leen ma appuyé booy xam nga diw mu ñuy coo maa ko nax daan ah ah bul tudd dama leen rus bul tudd tur non non alaxam bu ñuy coo maa ah. ko daan alaxam bu dëkk Faas maa ko nax daan ah. ah. ku dëkk Pikine géej gi waay eh, maa ko daan kese dama leen rus bëgg ma di tudd seen tur waaw waaw lan kooku ñooñu doo wax suñ combat waaye jotuma xaar laal waaw yooyu yëpp am na si baax yow ancien nga de ma limal leen kin kin ma limal leen <laughs> yàlla bu lim di reewaay bilaaxi doon limu de bar sëñ Bàmba ma mais moo dara fee rek ndeysaan yow suma doom nga suma xarit nga ne maa ngi ñëw rek nga maa ngi ñëw ndax daam foo nekkoon te bu la neexoon rek ba bañ la fekk mooy de la fin waaw c'est tout c'est ça kan ama lu mu wax la laaj wax ma la instant bii de da wax ma la mais loolu nag la. première njëkke ah. septième njëkke bëgg nga bëggoo septième njëkke ay bu ma amee doom mais nag ah. deux mille kañ <laughs> cinquante ah waaw man nag tamit waaw njool bëgg naa soxna de mais nga ne daa teel gis nga daa teel booy bég moom waa njool bañ ne suba korite walla njool jabar yu rafet bi ñu nee suba la korite la yow di sëy ino moo dajale xaalis bay waaje takk jabar bëgg a wujjanteeg njool ma sàcc xaalis bi man instant bi dem na liggéey téer pour événement yi jeex mu mu ngi dajale pour takk ndax njool a takk rek ino foog mu takk daal sët bu ma bu ma ko mënoon takkandoo set mais mënu ma ko du ma ko def mais ino <laughs> yaa ngi dajale boobu ba tey ñi saaki sa xaalis doo too xaar te xam ne jotagoo si takk da xaar takkagoo njool a takk instant njool magee na la jabar dóorul sax ñàkk jom kon man waaw maa ngi tàggatoo fëli fëñ fëñ fëñ sa waa caa caa fëli fëñ fëñ sa waa caa doo dégg yow séeréer bi nan la lan ah, bal Baldé Falaay nee na Mbaye Bass Mbaye Bass lay bëggee de Mbaye Bass maa ngi lay bëggee waa doo ngaaka yow xamal li ma la Falaay nee na Ama Baldé 10 heures au nuit au lit Ama moo ko def mbër tey au boobu ama du tuux du doxaan au lit Laurent Ndiago 19 heures au vingt heures vingt heures. Oh, euh. vingt une heures euh. mu toj réew mi. <laughs> ah njool wala gisoo ah, lool. ah def champion. ah maa looloo ko def champion. Ah. waaw mais vingt une heures nga toj. mi toj réew mi sama buntu gàlle la yem de. tànc ay njool di leen mbugal borom jabar amatul doole. di ko caxat caxatee sànni fële. damaa bëll. maa ngi soogay nice. ma sol li gën a jongama yaa ngi gis yàlla bu rafet di reye noo rafet bu doon reye dee naa yàgg na rafet bu doon reye wàcc naa defis ñàkk ngeen ma non ah dama rafet di mais rafet lum mais rafet rafet reewul fekkoon day ree bu ma màccee sama tuñ dee heure bi dee naa ndax màcc naa sama tuñ damay gën lii lan la li defar nii rek waa di waajal takk njool bi lan demee lan day sëy si takk na ba pare def na lépp boo day sëy si mu solomante lan ñaan déwénel njool laa la wax day solomante laa day solomante laa non gént ma ñu soloma maa gént kay kii jinne affaire boobu noonu di ñëw guddi gi aw jinne awa jinne sob awa jinne de moo fekk may nelaw mu ne ma gaan mbër ma ma jugal entraînement yi daa métti awa jinne daal li ma def sa tat ma def jëf ju ñaaw ah, maa yow fekk ma fa dara barki allah gi fal awa jinne yóbbu na sama business bi ah? awa jinne kay gaan sama bàjjen dina xam mere de waaw fu dëgg yàlla maa yow fajar dawe ji géej ne wëy yàqu naa perte naa àdduna ak lu ci biir hmm. mais ba ma waxee ay espéru jigéen ñu ne ma loolu defu dara ah. ma kontaan espéru jigéen yee ma woo gént la ma woo espéru jigéen yi ñu ne ma lool defu la dara loolu noonu awa jine defu dara loolu barki allah ji fàllu ba ma awa jine kii ma bërëngu bërëngu waat ne nii laal liis newaan nii laalaat liis ne lii laq la wala xam wala cin bu dal <laughs> lii lan la lii ba jàmm la satat di jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak waaw di bëggee mafia bi gis nga moomi nii nii ndeysaan ñii rek amay taxa sonn bar sëñ Bamba billaay booy nii fii nii ñoom kese may géemloo yàlla noppi na daal sëñ Fall waaw ah gis nga bilaahi